laaj ci affaire Cheikh Ahmed Cissé boobu laa leen indi. bàyyi di ko xeeb. ki ngay xeeb xam loolu yàlla nam ma ci moom. wallaay te yow mi koy xeeb xam nga fooy nag marxaban biikum ci Ahmed ñu ngi lay dal. am na programme bu am solo bu ñu am maag yow. ak Pawlish c'est di mooy jigéen ñi nekk ci prison camp bu Liberté 6. ndax am na ci ñu nekk si ay jafe-jafe. Mhm. mooy ñi nga xam ne amatuñu soutien de leur famille. Mhm. ngi lijjanti quelques fonds pour que bu ñu waree ak jàmm ñu dem yóbbu fa ndimbal. Mhm. parce que am na jigéen yoo xam ne bu ñu soxlaa jumtuwaay yooyu jigéen ñi soxla sax coton dañ koy ñaan ci biir. dañ leen yóbbu eau de Javel dañ leen yóbbu saabu dañ leen yóbbu coton hygiénique ak yeneen yu jigéen ñi soxla. idée bi kan la. Ahmed Cissé ak Pawlish kon ñoom seen ñëw ci Jamra. yàlla daf ko jaarale ci moom dafa dafa jox Jamra un nouvel essor. ñu fas yéene ànd ak ñoom nag. Mm-hmm. parce que Jamra kenn moomu mm-hmm. man moomu ma ko. Mm-hmm. Imam Massamba Diop moomu ko. rahmatulah Ali Abdou Latif Guèye moomu ko. comme jàkk la rek. jàkk kay dugg di julli. doo ko naan waaw loo fi wut ak da moo ma jàkk ji moo tax prix Nobel yi dañ fay julli ilimaan yi dañ fay julli xutbu samaay di fa julli balekatu mbedd yi eh, eh, bitig mbagg yi ak ñeneen alors Jamra aussi ku ñëw tu es le bienvenu pour lan wootewuñu diine wootewuñu daayira wootewuñu tafira li ñu woote mooy yàlla dafa wërsëgale Sénégal mag ñu baax ñi tëdd Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba ñaseen Medina Baye Layène famille omarienne ku ci nekk ci ñoom bi ngay laata wuy sa borom jëf nga bàyyi fi wax nga bàyyi fi bind nga fi kon bu ñu jógee ne ah waay ñii day war nañ leen fay bor waxi taalibe bu xër la rek ndax ku la génne ci lëndamaayu jahiliya indi la ci leeru sirata mustaqim ku la xamal xaala laaw xaala rasulullah soo jëloon sa salaire intégralement chaque fin du mois boole kook conteneur or ak jamaa di ko ko jox du tax nga dab boobu bor parce que xaala xaala rasulullah kenn mënu ko fay alors comme que mënuñu leen fay seen bor nag lu fi sës te loolu moom la jëm la itteewoo joxante loxo ak suñu mbokku taalibe yi te bañ a xeeb kenn bañ a seexlu kenn pour ñu seq ndono loolu fas yéene lan sàmm ko aar ko ba ku ko bëgg a xajamal mbaa nga bëgg ci xëpp suuf ak koo mën a doon lobby LGBT lobby trafiquant de drogue ak lobby yu mën a doon ñu jóg jàmmaarlu ak yow mu jariñul ne kon nag buntu bàngook yaatu na. wax naa maa ngi doon tooñ sister Maria ak sister Adja. seen carte dana ñëw. ku ci nekk ak sa fi la yàlla féetale ci ay fem. Eh, oustaz Sam. ak mm-hmm. oustaz euh, Guèye. Mm-hmm. seen carte dina ñëw. incha mm-hmm. allah ngeen ñëw jàpp ci combat bi. ndax wala dafa ne lu kenn mën ñaar ko ko dax. kon nag en ah, tontu bi ma Makhtar Guèye a yaatal sax mais moom dama koy bàyyi mu mu mu jàll am na parfois yenn affaire yoo xam ne day xaw a contradictoire mais bi nga expliqué nii euh, xaw na leer parce que ku dégg Ahmed Cissé dégg dégg Pawlish. ngeen di dénoncer parfois yenn comportement yi. ngeen di dénoncer yenn façon wax yi nga xam ne xanaa di ngeen leen xaw a soññ tuuti sama xarit boobu Cheikh Cheikh Ahmed Cissé mu xaw a. ah déggoo Cheikh Ahmed Cissé wala boo bëggee naa la yónnee band bi. moo waxal boppam kenn wañaaru loxoom dafa ne. Hmm. am na lu ma yàlla nattoo ci yëngu-yëngu ci wàllu koom. Hmm. mooy damay jaay ànd la buri hmm. sama coow ak ñoom jëm rek ba ñu porté plainte ba ñu làq ma jant bi. nee nañ ci na ma doon waxee la. léegi comme que ñëw naa jam rek mënuma eh, def. lu ma neex. kon foog ma am lu ma set. kon nag lii may jaay. danaa ko jaay waaye. te c'est un métier qui parle. incha allah danaa wodd kaddu gi. waaw mi ngi koy or loolu rek ngi koy ah, or la. mi kon euh, na ñaanal euh, Pawlish. Mhm. ñaanal Ahmed Cissé. Mhm. Euh, Kouthia maa lay gërëm ndax yow jël nga sa carte semaine bële. incha allah voilà am na ñeneen ñuy ñëw. Mhm.